Ngok la comme ni nga ko waxee loolu lañ koy daal di tàmbali ak li nga xamante ne mooy yéenekaay bi léegi L'As Quotidien ni ñu ko defee ci kàllaamay nasaraan mu wax nag ci li nga xam ne moo jëm ci mbirum Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang xam ngeen ne ni ki démb cour d'appel daal dinay joxe verdict bi tax nag L'As Quotidien tey jii ci yéenekaay yi daal di fësal nataalu Ousmane Sonko ci xët njëkku yéenekaayam di xam ne ni cour d'appel daal dinay daal maanaam daal dinay gantal. kii di Ousmane Sonko mu samp dëndam ci élection euh, présidentielle yi ñu dëgmal loolu daal mooy li nga xamante moom la L'As Quotidien wax ni ki tey jëlee beneen yéenekaay boo xamante ne naka noonu tamit wax na ci euh, boobu lépp mbir ñeen nag euh, li leen di maanaam verdict bi nga xamante ne wàcc na ni ki démb diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang di bés bi le jour yéenekaay bi tey wax ci boobu lépp mbir moom tamit wax ci li nga xamante moom moo jëm ci boobu perdu nga xamante ne wàcc na ni ki démb di xam le ne kon euh, Sonko fi mu nekk nii mu ngi ci danger loolu nekk titre bi nga xamante ne nag euh, yéenekaay bi la daal dina koy fësal ni ki euh, tey jële gis ngeen ko ab bu Ousmane la ñuy ci daal di teg ci boobu lépp yéenekaay di bés bi le jour boo leen ko boo leen ko xoolee maanaam nee na daal article L 29 la Ousmane Sonko daal di mucc waaye nag dafa mujjee daanu ci article L 30 yaatal yi nañ ko am kon ci page 5 bu journal bi la. di bés bi le jour keneen koo xamante ne wax na ci boobu lépp yéenekaay yi di euh, professeur Ngouda moom nag wax na ci li nga xam moom moo jëm ci boobu lépp biir taxawaay bi nga xamante nag maanaam jamono ji euh, moom la euh, maanaam article ñeen wàllum constitution am ci jëmale ko ci kile la di Ousmane Sonko beneen yéenekaay l'observateur wax ci boobu lépp biir naka noon tamit taxawaay bi nga xamante ne Ousmane Sonko am na ko jamono jële jëm nag ci jongante njiitu réew jamono ji rek ñu koy waajal ci atum 2024 wax ci procès bi nga xamante ne moom loo xew ni ki démb ak verdict bi nga xamante ne cour d'appel wàccee na ko 6 mois et 6 looluy titre bi nga xamante ne nag kon yéenikaay bi ne di l'observateur daal dina koy fësal ni ki tey jëlee beneen mbir ba tey wala sax beneen yéenikaay di Walf Quotidien gis ngeen ko moom tamit ci mbirum Ousmane Sonko lay daal di wax ak verdict bi nga xamante moom moo wàcc ni ki démb kon cour d'appel daal di koy wàccee Sonko un avenir en pointillé loolu mooy titre bi nga xamante ne daal dina koy wax ni ki euh, kon euh, tey jile yéeni kaay bi la di Walf Quotidien waaye tamit dafa am beneen euh, maanaam ponk boo xamante ne dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy kon maanaam actualité tey jile muy génn bi nga xamante ne Barthélémy Diaz génn na ko ni ki démb muy maire bu ville de Dakar gis ngeen ko ci sonal bi la di Walf Quotidien ci xëtu jokku yéen kaay mu teg fii ki la nag di maire bu ville de Dakar gis ngeen ko ko situation politique waaye tamit Yewwi Askan Wi taxawaay bi nga xamante ni wala gis-gis bi nga xamante ni Barthélémy Diaz am na ko ci naka noonu seen diggante moom ak Ousmane Sonko loolu yëpp bokk na ci ponk yi nga xamante ni Barthélémy Diaz yéy na ci yàbbi ni ki démb moo tax nag yéen kaay bi la di Walf Quotidien daal di bind ne Barth se lâche loolu daal mooy titre bi nga xamante ni euh, kon moom la Walf Quotidien daal di def euh, ni ki beneen yéen i kaay boo xamante ni moom tamit wax na ci boobu lépp mbir muy lii Quotidien nee na daal clash moo moom mooy Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz loolu tax kon euh, yi la yéen i kaay di lii Quotidien daal di def ci xëtu njëkku yéen i kaayam ki la di Barthélémy Diaz gis ngeen ko ñi nga xamante ni ñoo ñu seetaan gis ngeen ko ci yéen i kaay bi li Barthélémy Diaz sañ na taanam daal moom la daal di génnee ni ki démb eh, ci li nga xam moom mooy rek jànnoo ko taskatu xibaar yi ñu jeexale ak tàggat yaram ak li nga xam moom mooy Ligue des champions gis ngeen ko eh, ci naatan bi ngeen gis nag eh, ki De Bruyne naka noonu Toni Kroos bu Real Madrid bi rek xam ngeen ne lay daal wet ba nag ngeen gis ñaari nataalu coach yi muy nag coach bi nga xam ne moom mooy coach bu Real Madrid di Ancelotti naka noonu Pep Guardiola bu Manchester City gis ngeen ko nag tax yoroo koy daal di wax ni ki tey jëlee Real Madrid Manchester Manchester City. choc lay doon ni ki tey jëlee ñu jeexale nag yéenekaay yàq li nga xam ne moom mooy kon bi lay yéenekaay di Réew Sport mu wax tey ci ndaw Sénégal bi lay di Lamine Camara xam ngeen ne ñu ngi waajal coupe du monde des moins de vingt ans équipe nationale bu Sénégal. dina ci participer tey ji nag ñu daal di am ab satisfaction ndaxte satisfaction bi mooy kii la di Lamine Camara Ndaw bi nga xamante ni moom moo bokk ci ñi nga xamante ni bokk na ci élément majeur yi tax Sénégal daal nekk sacré champion d'Afrique ci Égypte bi ñu jógee Coupe d'Afrique bi daana ñëw ci Coupe du monde bi la gannaaw ba nga xamante ni club boobu la di FC Metz waxoon nañu dañ koy téye waaye fi mu nii kii la di Daaf mën naa daal di nooyu comme am jamono jëlee laaj Mansour ñu ñëwaat ci yéenekaay yi comme ni ñu nga xamante moom moo wàcc ni ki démb Ousmane Sonko ñu daal di koy daan di diiru euh, juróom-ñett juróom-benn weer avec sursis maanaam boo xamante ne du ko tëdd. Euh, ci euh, prison waaye tamit 200 millions amende boo xamante ne war na ko.